mbégte la sant yàlla bu baax ndax xëy na jigéen lañ waaye bëgg nañ lu baax te foog naa ne lu baax góor bëgg na ko jigéen bëgg na ko yàlla nag moo ñu bëggloo jumaa ji ñun ndax kenn sasuñu ko kenn sollicité wuñu ko aussi dañoo dëkk ci dëkk bi nekk jullit te jàpp ne lu góor war mun a faj jigéen war na koo mun a faj ñi gis jumaa ji ni meloon melokaan bi doy waar lool ñi ñaan suñu borom bi nga xam ne nag ku am moo la may te moom mooy dimbale te mooy fay jëf aussi ñi ñaan ko yàlla nañu yàlla dimbali ba jumaa ji ñi defar ko bi ma koy wax yàlla xam na ne yaakaaruma ko fenn te yaakaaruma woon aussi que ne dinaa si am sax ñu ma si jàppale yéene laa amoon fas yéene taxawal ko ba ñi ma ci dimbale dimbale ma ci liñ naan boo yéenee rek yàlla dimbale la may sant nag bu baax ñi ma gunge jàppale ma ci liggéey bi ndax dama amoon yéene rek nag commencé su ma munee am benn birig teg am ñaari birig teg waaye nag yàlla dimbale ma boole maak vraiment samay partenaires yu baax ñi ñëw gunge ma ci liggéey bi kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mënu ma leen fay te ñu amaat yéene nag lépp loo xamante ni mel na ni ci département bi wala bépp jumaa boo xamante ni gis nañ ne melakaan bi ni mu nekk wóorut waaye population bi soxla nañ ko fas nañ yéene bu ñu amee suñu benn birig ñëw teg suñu amee suñu peinture teg ku ñu ci fekk fekk ci ku ñu ci jàppale jàppale ñu ci waaye di sant ñëpp Matar di gërëm aussi Moussa Ngom mi mi nga xamante gaaw gaaw liggéey bi ak xetaaw liggéey rek sant yàlla rek ndax bëggoon nañ sax mu gën a gaaw lii bëggoon nañ sax mu gën a gaaw lii waaye xam nga jumaa ju toll nii boo koy def waroo ko yàkkamti liggéey bi waroo ko yàkkamti war nga ko taxaw ba lépp loo xamante ni war na ci nga def ko ndax jumaay cosaan la Koungheul ñëpp ñoo ko bokk man nag defar rek laa mun waaye moom ma jumaa ji jumaa ji waa Koungheul ñoo ko moom dama dëkk ci dëkk bi amoon yéene bu rafet ne dinaa ci def même bu dee benn birig tey ba yàlla dogal mu sottee ci man kon ñu ngi ciy santaat yàlla tey du bisu lenn lu dul bisu sant ndax li may wax rek man dama yéene rek yàlla dimbale ma mu yegg kon loolu nag delloo naa ko suñu borom mi ma ci jàppale ba jumaa ji mën a yegg waaye nag gërëm ñi ma ñaanal ñëpp ndax kilifa diine yu nekk ci département bi ku ci nekk ñaanal na ma ci li ma yëg ak li ma yëgul ñëpp ñëpp ñëpp ñi may gunge ci liggéey bi ak ñi ma àndal di politique ñoom ñëpp tey ku ci nekk jël na jumaa ji teg ko fële politiqué wu ko li leen di wax rek ne leen jumaa kenn du ko politiqué jumaa moom bu ñu politique ba ñëw ci jumaa ñu war a teg suñuy suñuy kaaka ba ba passé jumaa am na yoo xamante ni moo tax nag wax dëgg dimbale nañ ma ci ci liggéey boobu waaye aussi gërëm commission bi nga xamante ni ñoo ma yombalal liggéey bi te gunge ma ma mun a citer ñëpp ñëpp ñëpp waaye bu ma jëlee bu ma tuddee alaaji mbay tudd tonto aada tudd gërëm naa ñëpp waaye gërëm nag suñu papa suñu kilifa ci dëkk bi muy Pa Moussa Fadio ndax jumaa ji metti woon na pour daaneel ko sax yombutoon liggéey bi gàllankooroon nañ ko waaye mu taxaw ak ay ñaanam taxaw ci teem jël jumaa ji teel ko boppam moomal ko boppam kon ñun papa Moustapha dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam ak mboolem imam bu nekk ci département bi rawatina imam yi nekk ci commune bi ñu ngi leen di ñaanal di leen wax ne suñu xol sedd na parce que nit ñi ko yombalalee nit ñi jàppalee nit ñu encouragé même bu fekkee benn brique lañ indi woon sax encouragé nañ ñu ba ëllëg wax dëgg yàlla bu ñu doon def lu baax benn di leen ko yokk waaye gërëm aussi Moussa mi nga xamante ak yéeneem ak yitteem ci diine moo tax ma ne ko Moussa dénk naa la jumaa ji nga taxawul ma ko te foog naa ne lépp lu ci war Moussa def na ko kon Moussa gàcce nga laa ma yow ak aussi ak ñi nga bokkal liggéey bi ñëpp boo ma ne Moussa tudd naa ñi may àndal ñëpp ci liggéey bi kon ko ma fàtte rek nga baal ma di gërëm aussi entrepreneur bi parce que ak moom ak équipe jumaa ji daal ñëpp yéene lañ ci demee. délai bi def na ko boole kook nag liggéey ko ak liggéey xol. kon maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. beneen mbir mi tim mooy sa juróom-ñaari mouvement ci département Koungheul. Mhm. Euh, comme ni koy ñoom sama yaay Aminata waxee rek. mbir mi saa su ne da mhm. fekk saa su ne da ngay dox ci social. Mhm. mais itam wàllu diine gi desul ci gannaaw. ku xam député amul sa salaire bu mu koy defee. loolu lan ngay wax ci loolu juróom-ñaari mouvement tey loolu bëri na ci département di ci sant rek te di ñaan mu yokk parce que am nañ yéene mu yokk parce que nag ay doomu daara lañ mataar suñu nekkee doomu daara di politique. war nañ mun a bokk ci ñi njëkk a taxawu daara yéene boobu la ñu am ak bëgg-bëgg boobu ak pas-pas boobu te di ñaan lépp loo xam ne def nañ ko ci ñu xeeb ko yàgg naa wax ne man bu ma sañoon bépp jumaa bu am problème ci département bi ma dem tabax ko sama bëgg-bëgg la ak sama yéene même bu fekkee mënuma ko tamit yéene naa lool ci ci lay dox te maa ngi ñaan yàlla dimbali ñu ba ba ñu yeggali yéene boobu noonu ci département bi incha allah. ginnaaw jumaa bu njëkk ba Mhm. sant rek Matar sant rek di gërëm yàlla rek te te fas nañu yéene incha allah mu ëpp ko parce que am na yeneen jumaa yoo xamante ni mu ngi ci dëkk bi nekk ci département bi te pare nañ incha allah pour taxawu leen ba ñu jot ñu ngi ciy sant rek Matar di leen gërëm yéen aussi vraiment parce que yéen tamit ko am taxawaay ngeen li ñuy def bu ko nit ñi gisee ba bëgg ko wala nit ñi mun ko wane vraiment yéen aussi yéen a siy jàpp wane ngeen ne dëkk bi ñoo ko bokk te lu baax ñëpp a ko bëgg tey li ma waxoon mi ngi koy rëdd rek ku ne am na yéene tabax jumaa ji bu ko yàlla jaaralee ci ñun nag bu sant ko bu baax gërëm ko. incha waaw comme ni ñu koy defee rek mataar parce que ñun suñu lépp Koungheul la tey bu ñu amee doole duñu ko tiitaroo yàlla moo ñu ko may mais ak waa département bu Koungheul kon fas nañ yéene lépp lu ñu am. ñu indil leen ko waaye bépp jafe-jafe bu ci nit am duñ ne mun nañ ko faj de waaye dinañ ci def ba ñu yëg ko kon projet yi mu ngi ci kanam te incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla dimbali ñu bañ taxawal ko di wax ne am na yeneen jumaa yuñ fi bëgg a defar du yàgg da ngeen ko gis incha allah merci beaucoup